ñu bari soo mënal wax ñëpp dama koy wax waaye képp koo xamee ni ameel na stoq ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci xolam tey jii am na lu ko naqari ci wax joo xamee ni daa jóge fuñ ko foogi wutoon mu rëy ci ñun lool ci koo xamee ni turam dafa rëy lool muhammadul mustafa mustafa bokk ci tur rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu bett ñu lool lu ko waral lu tax looloo tax kuréel gii nga xamee ni moo tudd xuddaamul xaddim pour liggéeyal Cheikh Xaddim rek tax koo jog liggéeyal rasulullahi rek tax koo waaye liggéeyal islam bi sifa amma tax koo jóg ñooñi ñoo yëkkati seen kàddu ci mbir mii nga xamee ni yambar mii ku yàlla toroxal kii kii nga xamee ni Sëñ Tuubaa beddeeku na ko mu ñëw wax wax ju bon ji ci ma ko ci rasulullahi ak wayjur rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, ki mu wax mooy kan kooku mooy sëriñu Cheikhul Xadim kooku la sëriñ Tuubaa jël ko kooku moo yor léppay kooku la ko yàlla booleel moo tax mu ni kookoy kan wasilati kookoy rasulullahi مطلبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنيتي واي وجنتي واي وجنتي واي وبغيتي سيدنا محمد أفضل من مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن kooku moom laa jël sama lépp yokk xaddi jacaltuhu turaaban alihi yaa laytahu laxadani bi karamihi jumlatu maali wa midaadi walqalam hadiyatun lil Mustafa baabi niam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saacati ila xululi ramsi te kooku mooy nabiyuna al Mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu abaahu kooku lañ daal sangub Cheikhul Xaddim kooku nag bu buñ ko laalee amatul ñun sago dañuy daal di jóg interpellé taxaw ci yambar mii nga xamee ni mooy wax waxlu ku ko wax la kan moo nekk ci ginnaawam c'est-à-dire lan ba muy coow di wax di tëlli tëlli adduna jëru ko ab cër jëru ko ak fal jëru ko lan da ngay dund léegi ëllëg da ngay faatu xanaa sóoraali wut loolu te pourtant moom mi ngi tuddoo ci dëkk bi mi ngi tuddoo Touba mi ngi tuddoo Cheikhul Khadim mi ngi tuddoo ab julit mi ngi tuddoo ku baax lu ko yóbbee ba muy wax ab jataay bu soof muy wax ak ña muy waxal lu ca yoonu diine lu ca yoonu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba muy tudd way juru yonente bi di ko tëkkaleeg mu ay way juram moom ay dafa am wajur moom moom kan mooy ay wajuram lu ñu signifié lu ñu tekki lu tax yow yay kan yow yaay lan rasulullahi gën sa ndey rasulullahi gën sa baay gën ñëpp afdalu xalqillaahi lu ci sa yoon yow ba ngay dal ci rasulullahi wala di wax rasulullahi am yàlla danaa nara a toroxal ci digg àdduna bépp bala ngaa dee bala ngaa faatu li nga tëli tëli day demal nga jaamu ji yàlla demal nga jéggulu ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi sa tëli tëli ji adduna mënoo ko fees mënoo ko dab mënoo ko am lal nga laalaake nag engage na ñun waa xuddaamul xadim boo leen xamut na nga xippi seen bët tey jii léegi nga xam leen danañ jóg li jënti lépp taxaw lépp gis nga yaa ngi sa jàmm ay saagee rasulillahi ay cheikhul xadim ak wal islam ñu baax ña kilifa yi ah mutasay fu nu baax ban ah nekk ci yàlla nekk ci li leen war nit ñi jóg di leen interpeller di saaga di wax yu bon yoo xam teguñu ko fenn ngir ay yu bon ñu nekk seen ginnaaw yoo xam duñ diine duñ islam duñ dara gis nga ñun sun bakkan dañ koo jox cheikhul xadim te du ñu dañ di ko jox cheikhul xadim kon rawatina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam mooy léppam ak waa lislaam bi nga xamee ni ñoom lislaam rek leen tax jog jóg képp ku leen laal danañ jóg taxaw incha allah ànd ko ñëpp yow nag mm, sa yoon dafa nekkul ci wayjur yonent bi anañu ñu ngi sawaaraak ñu ngi sawaru yow lu ci sa yoon politique xam boroom xam-xam yi xanaa jàngo al imam euh, benn waay benn kili bu tudd al imam Suyuti ko waxtu wee xat kon ma leeralal mooy kan ñaata téere la bind juróom benn téere di leeral lii nga xamee ni moom li nit ñi di wax wala ñeneen jàppoon ko naan wuy juri euh, sallallahu alayhi wa sallam ña nga barab sàngam ña nga barab sàngam ña nga barab sàngam xool téere bi tudd masalikul xunafa dem ca fii abawayil Mustafa da nga ko ca fekk demal ataasimu wal minna fii anna abaway rasul fi ljanna dem ca adurjul munifa dem ca fi l abai sharifa waaye nashru alalameyni almunifayni fi ihyaai al abawayni alsharifayni almuqama assundusiya fi nisbati almustafawiya asubul aljalliya fi l abai alaliya dem ca benn bu nekk boo ci demee dana la leer naññ ne la ñoom ñaar mais pourtant ñoom fekk woon bi ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te képp koo xamee ni fekkewu ab yonent ñooñu du leen boo sa ci ahlul fatra te buñ fekkul ab yonent yàlla laa taasiba ah laa taasiba qablaha amul ak mbugal guy am ci njëkk loolu li qawlihi taala wa ma kunna muadibina xatta nabasa rasula te mbooleem boroom xam-xam yi kilifa yi yi bokk ci achaira moo xam min ahlil kalaam wala al usuliyun ci al achaira wala shafii min al fuqaha d' accord nañ ñoom ñëpp ni képp koo xamee ni faatu na te ak woote jotu ko nee na kooku yamuutu naaji yan la wax yamuutu naaji yan mais dara sikku ci ñoom dara jotu leen ah te ñoom ñaar mais ñoom ci diine sayidina ibrahima alayhi salaam mais ca la nekkoon ba kera ñuy faatu amuñu benn shirk wala benn benn buñ def ci diine sayidina ibrahima alayhi salaam lañ nekkoon hmm? te kilifa gii alqaadi Abu Bakr ibnu al Arabi laaj nañ ko te moom kilifa la goo xam mi ngi bokk ci waa Malik al dañ ko laaj ne ko ñu de dañoo dégg ku naan way jur yéen bi sawaral jëm mu daal di tontu daal ah, man xaala daalik fa huwa mal'un ko ku reew a noonu mais ku dofe ngi noonu ku rëbb la lu tax ma wax la loolu li qawlihi taala inna alladina yuduuna allaha wa rasulahu laanahum allahu fi dunia wal axira mu leer nañ ban lor moo gën a mën a rëy ci wax ak a ŋàññi lu la wóorut ci wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais lor gënu ko rëy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yow ak lum mën a doon xamoo mais say baay yow say ndey yow ana ñu fu nekk mais xamoo ci dara pas-pas gis nga kenn du ko pasar pasare pas-pas kenn du ko teg ci terrain bi pas-pas kenn du ko caaxaane mais lu wéré gi noonu lu leer gi noonu pas-pas ah kenn du ko foye kenn du ko pasar pasare kon booy wax da ngay wax loo xam ne leer na la baa nga joxe exemple ci ko war a jox exemple bari na ci ñëw war a jox exemple lu tax nga tànn rasulullah lu tax nga war a ji rasulullah yow moo gën sa ndey moo gën sa baay ay wayjur moo gën sa ndey moo gën say baay defal doucement la wax defal nag arrêtel si yow dara du ci dëgg am mag nag du nekk ci ab barab di wax loo xam leer na ko ne dara du ci dëgg lu xew lan la mais il faut arrêter mbokk yi ku mel ni kii nañ taxaw yi ñu interpellé xuddaamul xatib ñoo taxaw fa seen interpellé jëmm ji ak kenn ku mel ni moom li war nag ci ñun ci loolu mooy ñun dañuy taxaw fi nga xamee ni foofu lañ mën a taxaw ci wetu cheikhul xadim ci wetu rasulullahi xawla rasul ah bi qulubina xobban wa bi uqulina ra'yan wa bi suyufina jundan li ximayati hasa turas ah annabawiyi alxadimiyi wa aleykum alsalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu